sexy, al no. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak rajo Futur Media di leen ñaanal jàmb di sàkku ñaan ci yéen ñëpp gërëm bu baax xaaj njogu jéen mi nu àndaloon ci xibaaru wolof yeeg RFM ànd ak yéen ci penco gi tey ñu waxtaanee ñaari ponk étudiants yi wàllu bourse yi coow li waaye it euh, Covid 19 gi fii ba tey euh, ñu daal di rek fàttalante ñaaxante laata ñu yëkkati jotaay gi ak ñun ci téléphone bi monsieur le directeur des bourses Khalifa Gaye monsieur gay ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu sa ànd ak RFM. ñu ngi lay fay bu baax El Hadj Assane ah, Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi télé euh, auditeurs RFM yëpp. jërëjëf Gaye leen euh, li li waral waxtaan wi mooy étudiants yi dañoo génnati sax la ñuy wax euh, ci kanam tudd nañ ñëw ci wàllu loole ñuy faral di dund ne ay réero ñeel bourse yi waaye bi yoon ak génnug démb geeg yàq geeg fitna seen digg ci alkaat yi bourse yeeti lan moo xew d'abord lan mooy problème bi nga baal ma. Eh, waa kay eh, eh, El Hadj Assane mi ngi lay nuyu waaw li xew de moo jaaxal ñëpp ñun ci seen bopp ñun ñu liggéey ci wàllu bourse li xew daf ñoo jaaxal génn génn étudiants yi. Hmm. daf ñu jaaxal xam nga lu mu jaaxal ñu El Hadj Assane. Hmm. xam nga étudiants yi dañuy génn dinañoo toog ñaari weer fay ju leen bourse. Hmm. bu fekkoon étudiants yi lu tax étudiants yeneen université yi génn ñu te bourse yi bu ñu koy fay université yëpp lañ koy fayandoo. Mm. lu tax étudiant wu université Dakar kese génn ni dañ leen a ameel bourse deux mois leen fayul. Mm. li am mooy. Euh, étudiant université moo xam san ñu jàpp que ni gis nga fi ñu toll nii bis ni tey nii nii nii. Mm-hmm. état du Sénégal amulul benn dërëmu bourse étudiant yi benn dërëm. Mm-hmm. xam nga lu tax amulul benn dërëmu bourse. waaw mu nekk nii gis nga njàng mi njàng mi année académique la ñuy jàngee. ñi ngi ci année académique 2019 2020 dix nga xam ne si jeexagul ba tey. te ci année académique 2019 2020 dix nga xam ne jeexagul ndax Covid bee taxoon ñu prolongé ko. dernier mois bourse yi nga xam ne étudiants yi ameloon nañ leen ko ñu ngi leen ko fay début octobre fin septembre. donc fay nañ leen lépp étudiants yi ba bañu ñu nekkee ci seen kër yi ñi ngi doon doon fay bourse léegi nag dafa li ñuy laaj mooy année bii di ñëw nii mooy 2020 2021. nga xam ne dañ ko war a anticiper commencé leen koo fay ci loolu la ñuy laaj. ok loolu la ñuy ne pour ñu fay leen ci ñaari weeru bourse yi. Mhm. te loolu euh, moo tax ma ne génn bi jaaxal ma parce que waruñu ci woon génn ndax man ci suñ ñun ci suñu bopp. ñoo leen wax ni leen dañ leen di fay les deux mois dañuy commencé fay deux mille vingt deux mille vingt un ba defar état yi. ba mhm. yónnee leen ko. ok ba defar état yi yónnee leen ko ba ci gis ci seen tur. ba ni leen dinañ leen fay vers le dix. vers le 10 la ñu jàppoon boobu ba ñuy dem génne état yi loolu la jàppoon. Mhm. xëy na yéex yéexaayu ba pay gi ndax xam nga Ndakaaro coupe euh, xat-xat yi. ak nekki ñu ndax ndax bourse bourse dafa am solo ci étudiant monsieur le directeur. dëgg la dëgg la dëgg la euh, El Hadj Assane xam nga moo xam nga lu tax man bëgguma trop sax yeexaay bi. Mhm. xam nga yeexaay mooy loo xam ne si yow xaar nga ko ñu war yow lii am nga ci droit ñu war la ko jox. ok nga nga koy xaar te jotoo ko. ok donc avantage lañ leen doon defal ngir anticiper ko voilà. anticiper lañ doon def xam nga ñi ko daan fay ñi nga xam ne ci année normale lañ daan nekk. Mhm. ñu leen daan fay ñu leen ñu ko daan fay rattelu rentrée. ñi ko daan fay bu fekkee Noël maa ngi daan waaj a jot. ci lañ ko daan fay pour permettre étudiants yi mhm. daan daan fayeeku. Mhm. mu loolu sax d'ailleurs bi ma ñëwee nee naa leen il faut que ñu bàyyi di fay bourse parce que étudiants yi le plus souvent bu ñu génnee du problème souvent problème de paiement de mais souvent par rapport ak ñu fay leen balaa événement bi. soit lu mel na tabaski wala lu mel na Noël wala lu mel na yenn mhm. gàmmoog yu ni mel mhm. loolu bu waay dee jege si eh, même bu weer bi deewul sax mhm. dañuy taxaw ci génn tali bi ne nañ ñu fay suñu bourse te jamono metti mais bourse yi sax du pour tabaski korité bourse quand même c'est pour les études mais bon loolu nañ di ñëwaat après <laughs> légui da man li ma bëgg ñu japp ko mu leer moy mhm. étudiant yi fay nañ leen bourse 2019 2020 ba mu jeex tak am luñ leen ko ta amu ci benn bu am retard nak wax dëgg yalla légui nak ñu commencé di année bu bees boo xam si dañuy anticiper pour ni dañuy commencé 2020 2021 fay ñi nga xam ni war nañ leen mëna fay parce que du ñëpp lañu mëna fay ñi mhm. ñu mëna fay moy ñi nga xam ni bu ñu redoubler sax dañuy garder seen bourse ok ñoo ñu ñu daan leen di defal état ba euh, génnee liste yi ba ñoom ñu gis ko gis nañu ko depuis presque le vers le vingt six ah. gis nañu liste yi euh, ba ñu waxoon leen ni leen ci suñu yéene mooy vers le dix xëy euh, dinañ dinañ leen fay bourse léegi ban app lañ mën a jàppandi ban yaakaar lañ mun a am wala ban diir par exemple ñun leen fii ak lundi fii ak. waaw waaw waaw ñoom xamoon nañu loolu en bi ñuy xam nga bi ñu waaj génn. am na ñu ma ñu ma si jot a jokkool. Euh, euh, étudiants yi dañuy waaj génn euh, léegi nag kañ lañ di mën a fay man leen ne fay bi moom bu teelee ba teel vendredi lay doon. Hmm. loolu moom loolu laa leen waxoon bu teelee ba teel vendredi lay doon moo mais démb génne nañu communiqué pour wax leen ni que ni paiement bi dina commencé leen lundi. Hmm. loolu communiqué bi partagé nañ ko étudiants yi représentant étudiants yi muy délégué yi nekk université Dakar yi nekk ci université yëpp jot nañ ko. Hmm. ba partagé nañ ko ak étudiants yi. ok ñoom xam nañ ni lundi dinañ leen fay incha allah euh, ci ci leeral nga it ne ñi ñi ñi mu wóor ne seen bourse du dandu ñi ñi war a xaar nag ñu xool ndax ñoom danoon at mi am droit a la bourse waaw kay il faut ñoo ñu foofu ñooñu fokk ñu kii ba inscrire waaw waaw loolu kay balaa ngay balaa ngay <laughs> prétendre ay bourse mbindu naam voilà dégg waaw xam nga nag lu tax may inscrire ci pour nga inscrire mhm. xam nga daaw xam nga étudiants yi daaw privilège rek la ñu def xam nga daaw année deux mille dix neuf deux mille vingt mhm. gis nga li ñu def li ñuy def nii nii nii naan renouvellement automatique nga xam ne dañuy fay ki nga xam ne étudiant bi nga xam ne dañ koy fay pour euh, euh, yaakaar ni bu war na am bourse bu ñëwee bindu. Hmm. confirmer que ni pour war nañ ko fay bourse bi. Hmm. loolu da ko waroon def ñëw bind ñu mën ko ñu mën ko confirmer mais xam hmm. nga daaw. atum lëmb atum lëmb noonu lañu ñu continuer def sans ñu dagg benn yoon. Hmm. parce que à un moment dañu waroon a taxaw ñu ne étudiant bu inscrire rule nag. Hmm. dootuñu continuer di la fay. waaye atum daaw bi yëpp yëpp ba octobre. Hmm. octobre deux mille dix neuf ba octobre deux mille vingt arrêté wuñu benn yoon fay étudiants yi. parce que gisuñu ne bind na wala wul Mhm. mais dañoo continuer di leen fay rek parce que bëgguñu woon coow am. et aussi parce que situation bi xawoon na compliqué. ah justement euh, ngir bañ coow am parce que euh, jiite moom ak nattu la rek lu ci mën di am yeneen njaboote étudiants yëpp. Mhm. <laughs> Mhm. ñi ñi ñi nga xamante ni euh, tëradi nañ ak ñi tëradiwul. donc waxtaan yi lan la ñuy def ba di ko saxal maanaam ñu ngeen am ay interlocuteurs étudiants yi tamit bañ a tasaaroo il faut ñoom it. ñoo xamante ni ñoom la kilifa yi waxal yaa ngi naan waxtaan na ak ñoom am na ku ne ma bu dana nu génn. finalement incontrôlé ou incontrôlable voilà. en fait waaw en fait euh, li may yëg ci université de Dakar lu mel lu ni mel la. Ah. mais waxtaan bi moom am ñàkkul. Ah. ñun ñu ngi waxtaan depuis man ñu nekk ci direction des bourses. Ah. ñu ngi waxtaan ak les représentants des étudiants de toutes les universités. muy université y yëpp nag ñoom ñëpp dañuy damay dégganteeg ñoom. bis bu ne bu ñu ko soxlaa. bu ma leen soxlaa dama leen di woo bu ma soxlaa dañ may woo wala ñu ñëw ba sama bureau wala ñu ñëw direction parfois da ngay gis étudiants yu jóge ci ab université sax bu nekkul biir Dakar ñëw ba biir université euh, biir direction de bourse hmm. def ce qu'on appelle séance de travail parfois ak hmm. personnel bi nga xam ne ñooy liggéey ci données yi wala ci paiement bi dañ koy def moom la ñuy dañ koy bari dañ koy faral di def le plus souvent mën naa ci cité université étudiant université Saint-Louis ak étudiant université Bambey hmm. ñoom le plus souvent dañuy def loolu ñoom nag ñu ngi ko tuddee mission dañuy ñëw def mission moo tax université yooyu donte lee am na yenn problème jafe-jafe moo gën a ñàkk ay jafe-jafe Dakar. Mhm. maintenant Dakar fan yee passé da ngeen doon gis par benn benn groupe di génn naan nañ ñu jox nangam nañ ñu jox nangam. Mhm. man je pense que euh, génn bi nga xam ne amicalu université dakaar yëpp dañoo génn. man la ma analyse bi ma ci def mooy dañoo reprendre seen kii en mais parce que bon dañu gisoon que ni. Euh, ñeneen ñi parce que en fait da doon jut anarchie mhm. parce que université Dakar mënoo ñëw ku jóg nga wax moom am na ñu ñu fa fal mhm. nga xam ne si étude seen moroom yeneen fal ñu mhm. porté seen voix ñooñu ñooñu ñoom lañu daan waxal léegi nag bon man ce que euh, daa mel ni dafa am ñu jël seen yoonu bopp daal voilà am na ñu bëggoon jël seen seen yoonu bopp man li ma gis ci lu positif ci li xew démb li ma ci gis lu positif mooy au moins euh, c'est un combat porté par seen amicale yi loolu laa ci gis ci lu positif. très bien te te ñooñu bu fekkee porté nañ ko. ami mm-hmm. amical yi eh, du am anarchie di nga mën a wax ak. ñoom di nga am ñooy waxal voilà. di nga am ñooy waxal. te mm-hmm. boo dee wax ak ñoom di nga leen mën a wan li nekk. très te dinañ ko xam dinañ ko nangu. Uh-huh. maintenant ci payu bourse yi parce que yàgg naa. Euh, ba nu mm-hmm. fay jaar ba ngeen fay jaar ba ci kilifa yi réew mi tey jii sax di jaar ñoom ñëpp. mais xanaa amul formule magique surtout que léegi ñoo ngi ci euh, ère nouvelle technologie. waaw gis nga El Hadj tey bu suy ren est-ce que xam nga problème bi gis nga <laughs> bu est-ce que setlu dégg nga fi tay ren jii ni ren jii depuis janvier la la wax. Mm-hmm, mm-hmm. janvier ba tay jii ni étudiants yu génn di laaj pay bourse mm. ni comme niñ ko laajee nii. autrement dit kon day tekki ni day tekki ni changement yu positif am na. mais changement yu positif gis nga ren. Mm. retard bi ñu gën a am bu gën a rëy ci fay fay bourse yi xam nga kañ la. Mm-hmm. c'était au mois de juin c'était le 4 juin. mooy retard bi gën a rëy. ok boobu le 4 juin maintenant bini c'est c'est très particulier parce que en fait bini et pour dañu dañuy travailler pour parce que ñun bu ñu toogoon ba fin décembre fay ko sax hmm. étudiants waruñu ko woon laaj parce que dañu nekk ci benn phase transition boo xam ne si dañuy fay at bu ñëwagul hmm. mais fayu bourse non seulement am nañu am nañ jafe-jafe nag am nañ jafe-jafe yu rëy parce que nag comme li may wax léegi da ngay obligé di fay étudiant ba xam nga xam nga daaw lu dal mooy dañ ne dañuy def li ñu tuddee renouvellement automatique mooy étudiant boo xam ne si bu redoublé. Hmm. Eh, bu redoublé sax mën na garde bourse am ñu fay ko. Hmm. di xaar mu ñëw inscrire. ok est-ce que xam nga ni atum lëmb daaw. Hmm. dañ koo def sans étudiant bi ñëw mën naa ba ñëw ñëw présenter inscription am. mais pour que parce que dañ koo automatiser rek. dañ ko automatiser de sorte que bu paiement bi jotee. te te te en fait paiement bi. lu tax mu mu mu mu mu mu jaar yoon mooy dafa am arrêté interministériel boo xam ne si entre ministère des finance la ak ministère de de l' enseignement supérieur boo xam ne si dafa définir service yi séq fay bourse bi service bu nekk ñaata fan nga war a liggéey ci dossier bi ba nga xam ne war na àgg fa mu war a àgg ñu fay ci délai bi du passé

génn ñibbi seen kër lañ mësuñoo arrêté fay leen seen bourse dañ leen di fay seen bourse di leen ko fay ba juillet jege si xam nga juillet bu juillet jotoon dañu waroon a fay li ñuy tuddee rappelu vacances ñetti weeru vacances ah. muy juillet août septembre man sama bopp ma woo délégué yi nekkul Dakar pour laaj leen lan moo ci seen xalaat nan lañ koy defee ñu nekk Dakar ma woo leen ñu ñëw suñu sama bureau ñu waxtaan bi ñu ñëwee ci waxtaan boobu sax d'ailleurs la ab délégué proposé daal directeur daal li muy yaakaar li ma yaakaar ni moo gën mooy ñu fay ñaari weeru vacances ñaari weer mm. août septembre benn weer bi comme dañuy dellu siwaat mm-hmm. ngeen dencal ñu ko ba ñu dellu siwaat ngeen fay ñu ko comme ça ñu am lu ñu fa mën a nekkee ah.

xool nuñ koy lijjantee ñun aussi te ñun aussi dañuy dimbali. ñun mm-hmm. dañuy vraiment dañuy dimbali bu baax. ci liggéey mm-hmm. uh-huh. maintenant euh, même Dakar les délégués de Dakar. maintenant Dakar dafa rëy. Dakar dafa rëy. Mm-hmm. et ni ni ni ni yeneen université yi délégués yi constitué wa Dakar constitué woo noonu. moo tax peut-être que. waxtaan bi biir dakaar wala traitement bourse biir dakaar gën a difficile yeneen ko fi waxuma ni eh, taxul ñu koy ñu def ko nuñ ko war a ñu def ko def bu baax mm-hmm. moo gën a jafe dëgg la ñoo gën a jafe fuuf traité bourse Dakar moo gën a jafe fuuf traité bourse étudiant wu Thiès même si bon nag mm. effectif yi mën nañ wax ne effectif bi bokkul. dëgg la mais mais Dakar Dakar dafa kii bu jafe la université bu jafe la. très bien en tout cas ñu ngi ñaan jàmm ndax euh, ay du yam ci bopp borom ah corniche bi ñu koy jël léeg-léeg da ngay dox sa soxla benn brique fekk si la fa ñu ne étudiant yi. dëgg la dëgg la ñoom it war na noo jéem a méngale seen xeexeeg jamono waay ah. di di sànni xeer mel ni ñuy joor ay mango surtout sax man li ma leen di kii parce que. <laughs> waaw vraiment man parce que en fait Euh, approche bi xam nga. li ah. gën a jaaxal ñëpp mooy lu mel ni amul préavis. Ah. grève ah. defoo benn marche defoo dara nga xëy rek wàcc ci tali bi te lu rëy mënoon na fee am xam nga. lu rëy mënoon na fee xew. ci loo xam ni si eh, dafa bett ñëpp kenn yëgluwul eh, vraiment man man man nekkoon naa délégué. man nekk naa pendant fii nii nekk naa faculté de université Dakar bi nekk quatre ans délégué sama première ba sama hum, maîtrise hum. délégué laa fi ci ci université bi ci science donc xam bu baax li ñu dama daan problème hum. étudiant donc xam problème étudiant ci ma toujours dans l'enseignement super parce que à l'université donc problème étudiant problème mais seulement il faut juste que nous accepter di waxtaan en plus Mm-hmm. bañ jël mm-hmm. exception def ko règle parce que bu ñu yaakaaree ni bourse yi tout le temps da nga war a xeex rek pour mm. pour pour am bourse loolu je pense que xalaat bu yàgg la lu nit ñëpp war a génnee seen bopp te xam ne bourse yi léegi vraiment mbir yi changé na mm-hmm. ñi ko am ñi ngi leen koy jox fi ñu ko war a amee te ñi te lenn rek nag moom parce que en fait loolu laa fixé woon comme objectif moo doon fexe ba nag étudiant bi nga xam ne moom bourse am di ko jot te bañ a sonn mais tellement que loolu bala nga cee liggéey day fekk nga am jàmm. <laughs> ba waaw dëgg la euh, voilà mais il faut dal am ñun suñu wala fook dal am. pour hmm. nit ñi mën a def wut wut yeneen stratégie. gis yeneen solution yoo xam ne si étudiant bi dina fayal pour sam sans mu am benn benn benn jafe-jafe. dëgg la maintenant ak rembet gi aussi loolu xam naa beneen débat la fi léegi <laughs> université yaa ngi rembet bay tuuru nii. <laughs> parce que aussi bët wu wulaay xam na lu bopp attan. <laughs> dëgg la monsieur le directeur ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant vraiment. dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf sëñ Assane xam naa daal bi waxaat sama mbokk étudiants yi rek. Mhm. sama rakk yi. ñu gën a ànd ak dal. Mhm. te xam ne ñun. Eh, nekkuñu fi lu parce que ñi ñu ko seqal aussi xam nga aussi El Hadj Assane mu a ñu seqal liggéey bi. Mhm. waxuma kese waa direction des bourses. mais dafa am circuit bu dossier di jaar te ñu sonn ci nag. ñu waa mhm. ministère des finances. ok gis nga ministère des finances. Mhm. ñoom ñoo ñu gën a sonn pour ñu fay bourse à dëgg la. donc ñi ci nekk ñëpp nag di def effort yëpp. boole ci ñu xëy rek gars mel na xëpp lépp ci. tali bi. day day xaw a métti trop ci xol dëgg la dëgg la. day day xaw a jërëjëf voilà ñu sant bu baax yéen tamit ci li ngeen di contribuer. c'est normal ci jàllale message yëpp. jërëjëf Khalifa Gaye ñu sant sant ñëpp jërëjëf mu nekkoon ak ñun mbokk yi monsieur Khalifa gay directeur des bourses li waral invité gi rek mooy euh, réero gi feeñaat ci wàllu bourse ba étudiant yenn yi génn ak euh, alkaati fitna am ca ba yenn ci étudiant sax ami gaañu gaañu ci xibaar ñu rawale l'hôpital a yeneen donc lu koy di euh, mën a dindi ci réew mi wala di ko gën a néewal moo war waraloon waxtaan wi payum bourse yi ak euh, luy indi ak baral ci mbir mi ndax bourse yi niñ koy waxee am solo lool ci étudiant bi moom lay dimbali ko ci wàllu nekkinam muy ci njàng meeg dundin wi ci biir espace pédagogique ak campus bi social. ñu daal di ko gërëm Khalifa Gaye euh, jàll ci pàcc geneen nag ndax xam ngeen ni bala nga ne naam ne fa réew meeg njàng meeg bànneexu geeg liggéey oto yeeg yëpp euh, Covid gi mu ngi fi di jur ay musiba. waaw mu ngi juri musiba euh, barki Dembo Ndiaye ñàkk nañ ci honorable député soxna euh, Ndeye Marie Diouf ñu koy jaale njabootam yëpp ñaan suñu borom xarikaat jàlla dugg na assemblée nationale ni mu duggee fu bari ci réew mi euh, kon moo waral ñu war a wéy di fàttalante suñu biir dégg nañ fan yi mbootaayu ilimaan yi di sàkku ñaan am na solo lool ngir julit bi invité nañu imam Oumar Diène moo nekk ak ñun bu grande mosquée Dakar imam maa ngi lay ziar bu baax Diène Euh, Assane maa ngi lay fay di la delloo ziar di nuyu Sénégal yëpp. jërëjëf. di wax bismillahi rahmaani rahim alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi jërëjëf Diène fan yi gis nañu ngeen def euh, recommandation moytu geeg geste barrière naam waaye ñu ñu ñu ñu euh, dellu ci suñu borom Euh, joxe ngoon sax ay dog xanaa ñu baamtuwaat ko rek ndax du doy loolu sax dama ci profité waxaale nit ñi am jotu sax <laughs> fàttaliku seen borom ndax rang-rang gi ci dëkk beeg wut geeg xataayu jamono ku ko topp <laughs> doo doo doo doo fàttaliku toog di wird. dëgg la. Mm. Euh, feebar bi feebaru fitna la. Mm-hmm. feebaru ndóol la. ndax day jël li nga amoon yëpp. Mm. daf lay toroxal. Mm. tënk la. doo mën a uti doo mën a jëkk te li nga am doyul te it mu nekk feebar boo xam ne dellu siwaat na fi ndax wax dëggu yàlla góorgóorlu nañ ci woon ba def ci yëpp kenn ku nekk li mu mën ba feebar bi xaw a taxaw waane demul woon mu ngi ba tey mhm. moo tax taxoon ñu ne nag comme feebar baa ngi dellusee te boo xoolee actualité bi ba fi mu toll keroog bu ñuy réunion rek ñu ngi gis ne euh, ci euh, statistiques yi mondial rek presque egg na soixante neuf millions de contaminer. Mm-hmm. mënuñu wax sax décès yi dans le monde wala en Afrique. wala kii quand dañuy suivre euh, période uniquement. feebar mm-hmm. bi ñu muy évoluer mais surtout Sénégal moo ñu concerné ñun. imaam bi. Mm-hmm. te comme dañ ci bokk te bokk réew mi ñëpp. ñu ne nañu artu nit ñi ñun amuñu lu dul ñaan. dëgg la bi mënul def lu dul li mu mooy faj. ku mm-hmm. feebar mu jëm jëm ci lu mu mën. Mm-hmm. te comme feebar bi nag daf fiy jëlee nit ñi te fi dafay sonal nit ñi day daanal économie. Mm-hmm. fokk ñu fagaru bañ mu ñëwaat ndax ñëpp xam nañu te ñëpp wax nañu ne dellu seem baaxul ci ñun. baaxul ci ñun du ñu rey rek mais daf ñuy gën a gën a mettital. dëgg la te lépp def ci ànd nag. moo tax ñu ne daal fi mu nekk yàlla suñu borom moo fi sus. ndax kat lii docteur yi lu mot at ñu ngi ci def lu ñu mën. jeexagul. Mhm. nañ ci boole ñaan gi. dëgg la nañu wut ay dog di ko def bis bu jot te ñu koy santaane ci jàkk yi. Mhm. ak ci nit ñi. Mhm. fidèle yëpp nañu koy def saa yu ñu ko mënee. bureau yëpp nañ koy def ñu ko mënee. jumaa yi tamit nañ koy def saa yu ñu ko mënee. ndax yàlla dégguñu te dindul ñu fi lii moom rek ci mun dara fi mu nekk. moom lañ ci yaakaar yi. ñu toroxlu ci kanamam nañu jox ay. ay dog ni ñu commencé ko di ko def. di ko def di ko def. ci la bokk it ndax yàlla kat moo yore addinaam di ko doxal. Mm. ya nañ ci dimbali ba lii bu jëlee ko fii jàmm ak salaam. warees na ci am jàppale kilifa yi tamit euh, bon c'est vrai que dañ naan état laïc la ñu nekk mais xam nga ay nit boo leen di jiite ca ñu am seen diine ndax diine moom moo jiitu lépp defe naa ni ku ne war na mën a doon sa ndëgër laay muy diine gi di chrétien ji di l'islam gi. donc yow mi leen jiite war nga gën a may gët loolee donte da koy defee ci yoon yeneen war nañ leen jàppale ba ngeen am kàttan yéen kilifa diine yi di gën a wàññee nit yi ne serait sax yar bi nu bëgg ci penc mi ñoom yàq yi ñu bëgg wàññeeku li ñu doon tudd sànq ay xeex ak yu dóorante xeer loolu jikko moo koy moytul askan ci jikko li koy defar diine la. waaw dëgg la jikko li koy defar diine la mais nit dafa réer nit dafa bëgg nit dafa dafa yàkkamti. Mhm. nit gëm na yàlla ci wax mais ci jëf wóoru ko ci. si mhm. bari boobu. Mhm. te yàlla mbiram moo koy doxal ni ko neexee moom. dëgg la te comme lii àddina bi nag ñun dañu war a dem ak suñu sago ak suñu xel dama ne suñu sago ak suñu xel. lu am importance ci dundu nit. Mm. ngay xool di analyser di prévoir. dëgg la di jéem ndànk-ndànk di ut bunt ndànk-ndànk di xool nooy def ndànk-ndànk ba mën ba mën a jot atteindre bi nga bi nga soxla. Mm-hmm. te àddina nag soxlawul pour pressé. dëgg dañu fi ñëw dañu fiy jóge. Mm-hmm. mais mission bu gàtt bi ñu fi ñëw nañu ko ñoŋal ba nga xam ne bi fi fiy jëlee tamit day fekk mu nekk li mu war a nekk donte dogalu yàlla suñu borom a ngi nit ki war a góorgóorlu ci li mu mënti ànd ak sagoom sago c'est très important ci nit. Mhm. li fi njëkk a jaar nii ñàkk sago rek moo ko andi mooy affaire étudiants yi ngeen doon wax léegi. Mhm, mhm. ñàkk sago la mais communication bi bu gënee baax. gën a dem day ñëw. état nag peut war na investir waat ni mu defoon ci commencement bi. du xaalis. mais wax ak nit ñi. journalistes yi jëlaat fa ñu jëlee fa ñu tegoon ñu yëkkatiwaat téyewaat. ndax bi fi jógee journalistes yi ñoo ci gën a participer ak docteur yi. def nañ ci lu ñu mun. Mhm. di yee nit ñi rajo yi télévision yi wax yi ñëpp di wax di def. Mhm. te nit ñi it ñu am jom. am jom mooy. buñ mhm. la teree dara nga def ko. pour ñoŋal sa dund. takkal sa masque takkal. dëgg la weer raxasu weer raxasu. defal gel hydroalcoolisé. dee ko def. mesure barrière yi dafa dellu si waat. nit ñi dañuy mayante espace. muy ci dëkk yi muy ci ngénte yi. muy ci takk yi muy ci gàmm yi wala ci conférence yi. muy ci bureau yi ak ci daje yi nañu yaatalaat te dellu cee la ñu nekkoon. Mm. ba yàlla defaloon ñu ndam. incha allah bu ñu xeeb lu ñu amoon. Mm-hmm. def nañu ñu mun. mu moo nawet bi moo ñëwaat ci ñun mooy loolu. Mm-hmm. dafa dellu sewaat. Mm. te dafa dellu sewaat ak beneen façon. Mm. ndax feebar boo xam ne day soppeeku. docteur yi sonn ci lool ñi naan lii moo koy faj. lii moo koy def am na vaccin amul vaccin. nañ leen ko jël buñ ko jël. nañ leen ko def buñ ko def day gudd. nañu delloo ci mesure ba léegi ba loolu. li moytu rek moytu rek mu am sax moytu lu ñu mën. ndax mm. feebar bi day walle dëgg la jërëjëf nag wóolu ñu wàlle. Mm. lu dul mu dal leen rek day wàlle. Ah, loolu la de day wàlle day ñu jëlaat mesure barrière yi. Mm-hmm. ñëpp a fagaruwaat yeewaat seen ndigg ñu taxawaat pour xeex feebar bi mm. jógee gu fi. dëgg la eh, eh, demagut. par respect sax nañu yeew suñu ndigg taxawaat. ñu am ker def nekk woon. am ker sa tuuti sax ci ñi nga xamante ni ñoom la jël seeni i mbokk wallaay xanaa looy weddi weddi ba gis nag mu dugal ay njaboot ci tiis ak naqar jële fi ay kàngam yu mag ci réew mi ba ci àddina yëpp vraiment ñu am kersay ñooñu. Euh, defaraat defaraat comportement yi. c'est très important. ah, ah jërëjëf. am na Chine bi yoon kenn tuddul ne Chine moo ko fi andi. Mhm. waxatuñu wang lu jógee dem na fii dem na fële. dañu ànd ak lu ñu moo bu am importance mooy discipline. Mhm. ak réflexion. dëgg la dem ci nga war a dem def la nga war a def dellu sa kër. ñun nag dañ koo tumuraanke nag discipline boobu xam nga aussi euh, góom boo ko bëggee faj da ngay wax rek wax ja xam nga gis oh, nga teggin mais le comportement des gens même ni ñuy waxee xam nga wax dëgg yàlla ni ni ñuy toogee ni ñuy waxee ni ñuy dawale loolu ah, mais euh, àndul nag ak jàmm parce que reewande du jur du jur jàmm ah déedéet hmm. du la may dara lu dul toroxal la hmm. moo lay andi jafe-jafe loo xamul hmm. na nga ko gëstu dëgg la loo ko moytu feebar day day wàlle hmm. day dabe yóbbu nañu bari hmm. te feebar bi seetul garaatu nit ki wala garaatu nit ki hmm. nit ki saatu am fu mu ko jëlee maa la ko ndax député bi toog ñëpp koy seet si dañ ko koy andi jox ko ko maa ko dëgg la boo gisee ñu tey jàkk yi loolu parce que da nga koy dem jëli ko jox ko nit ñi te yooyu war nañ ko moytu balaa ñu ciy eggaat incha allah te ñoo ci mën a génne suñu bopp nag ñuy wax discipline ak respect ndimbal da fekk loxo borom respect mesure barrières yi nañ ko delluwaat très bien takk masque yi du gàcc feebar a am nañ ko takkaat. Mhm. incha allah jërëjëf nañ ko takk sax ba mën fa wu ci kawam. bu bañ ñu dugg. ñu bañ ko merci imam ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment ci yitte yi jërëjëf Diène jërëjëf ñu gërëm imam Oumar Jen ci saa su euh, disponibilité bi ak euh, li nga xamante ne mooy gi imam Sénégal ñu ngi bay seen waar bu baax a baax euh, di ñaan yàlla mu may ñu noppi dégg xëy na ci wàllu dégg gi ndax ñeneen wax <laughs> kenn ci Mor Thiam ngi lay ziar sama soppe waaw xaj Assane maa ngi lay delloo nuyu ziar bi cham jërëjëf di ñaanal di la gërëm nag ci turu sénégalais yëpp. alhamdulilah ci ci depuis ko mbas mi ñëwee ba léegi. Mm. taxawaay bi nga xamee ni bi groupe Futurs Médias am na ko particulièrement mm. yow ci émission bi di daan corona. alhamdulilah ak euh, li ci nekk yëpp nag macha allah yal na yàlla fay lu ko yiw macha allah. amin amin euh, mm. li li li waral euh, ñu ñu taxawee nii ñeneen taxawee ni boobaak léegi yëf dadul lu ndaw bon ñun nag mun nañoo ndawal lu ne Sénégal day néewal lu ne. mais loo xamante ni bu lay dal doo xam fu mu lay dalee ah mu ngi yóbbu nit ñi ba pare gàllankoor économie bi ah surtout pauvreté bi mu ñu nar a yóbbu parce que mbir moom teel ko wax rek dem tëddi nelaw ñàkk gi nga xam ne moom lañ nar a dugal ndax buñ la xaymaale la nombre d'emplois yi ñu perte ci réew mi buñ la xaymaalee borom kër yanu toogloo ca ñoom ñu nekkoon ay soutien de famille benn loxo bu daa dimbali ñaar fukk wala ñaar fukk yu tegal loolu bu dakkul ku la wax ne duñu dem ci ñàkk guy jur yàq jikko yi waxul la li ne waaw xaaj xam nga nit ñi ba léegi dañoo mesuré gul wala boog ñu bari dañu dañoo mesuré gul euh, euh, gravité jàngoro ji. Mm-hmm. te bu fekkee dañuy déglu rek El Hadj Assane muy wax ñu ne El rek mooy wax. Mm-hmm. wala ñu déglu docteur Ousmane Gueye muy wax ñu ne docteur Ousmane Gueye mooy wax gaa yi lii gaa yi mm-hmm. loolu mooy suñu problème gis nga mbir tànk ndaxtuloo ko. doo mën a xam musiba ma fa mu toll. te kiy natt mooy ki nga xamante ni kii dafa jëfandikoo xelam allah jasa. dëgg mhm. sunu borom ci alxuraan mu sant pour que ñu jëfandikoo sunu xel. Mhm. boo jëfandikoo sa xel allah jasan nga ñàkk alal garaaw na. Mhm. mais ñàkk wér ñàkk bakkan ko gën a garaaw. te bis bu nekk ñu gis sunu dëkkandoo wala sunu mbokk munu xamoon ñu wax ñu ni jàngoro ji moo ko yóbbu. kooku su fi mënoon toog di xiif di mar dana fi toog di xiif di mar. Mhm. parce que dana mës a am bés yàlla dina ko jox mu suur. Mhm. donc moo tax baat bi nga waxoon sànq baat bi rek ci la lépp di dellusi mooy baatu am yar am teggin. Mhm. lépp ci loolu la dellu si gis nga boo amee yar am teggin di nga mën a xam lépp li nga war a moytu noo koy moytu. alaaji gis nga xëccoo beeg xuloo beeg werante beeg ñàkk a dégg ndigal ak lépp mu ngi dellu ci baat boobu. ñàkk yar wala ñàkk teggin. dëgg la moo tax lu ñu mën a dimbalee nit ñi ak lu ñu mën a waxi tànk nit ñi delloo si waat tuuruñ suñu xel. Mhm. ba am yar am teggin li ñu bëgg a faj du ñu ko faj. Mhm. alaaji depuis mois de mars ba léegi. Mhm. amul bés bu yàlla dogal bu nga xamante ni bii doo jël benn expert ci benn domaine ci domaine santé wala information wala psychologie wala nangam mu wax ak nit ñi. lan moomu nu teree jóge fi ñu nekk. mooy loolu rek. mooy dëgër mm. bopp dëgër bopp boo ko delloo day dellu si waat ci ñàkk yar wala ñàkk teg teggin. Mm-hmm. moo tax nag il faut que ci wàllu yar gi aussi parce que euh, du ma ni dama amul yaakaar ci ñenn ñi am na at yu bu fa nit ki tollee. Mm. dawal gaaw ca case des tout petits ak yooyu parce que ñu ngi wuti ay milliards naan pétrole ëllëg ak yooyu mais ay nit yu defaru ñoo koy yor ñu baal ma ci waxin wi. il faut que ñu gën a insister ci système éducatif yi ci daara yi ah, ci nit ñi ba ci di xewu diine yi da ngay toog kilifa gi wax nga gis kuy jéggi tànk kilifa di di jël ay portable def ay selfie mais yow comportement yooyu ngeen foog. ngeen ko war a seetaan rek. gis nga gis mooy li ma lay wax. Euh, ñun li ñu war a li ñu war a xëntawoo mm. mooy kenn ku nekk defar sa toogaay. Mm. maanaam ma tàmbalee ci sama bopp. dëgg la ku ne yow nga tàmbalee sa bopp keneen tàmbalee ci boppam. Mm-hmm. lii nii xeexu xeexu ñëpp la. xeexu ñëpp la kenn ku ci nekk ci sa bopp ngay ngay ngay tàmbalee. Mm-hmm. tey jii El Hadj Assane bu ma nee man de incha allah tey jii bu may génn sama masque maag moom la boo ko def doo ni lii kañ lay jeex déedéet da ngaa bëccëg mm-hmm. biir ngay rek réglé. bëcëk manam ku nekk boo xëyee lël bëcëk bi ba bëcëk bi jeex. jeex na tak bu may xëy suba teel dama naan ana sama gel. mu ngi ni ma yobale ana sama masque mu ngi ni ma yobale tay ji kat bu may dem barab sàngam la jëm masque lañ fa soxla dana yobale sama masque. ay nit la fay dajël dana jël sama masque parce que bëcëk bi rek lay réglé. vraiment. bëccëg bi rek dëgg la bañu andi jëlale li wolof di wax jëlale nit ki da nga naan lélé takal sa masque mu naan mu andi yenen ndax febar bi amna est-ce que yëf yi du ay naxaate est-ce que amul xaaliss yow defal li la war ba pare. déedéet alaaji xam nga xam nga problème bi a bu amee xaalis. Mm. dafa am ñuy toppatoo xaalis ba. Mm-hmm. ak ña cee loolu man lan laay toppatoo sama santé laay mm-hmm. toppatoo. sama bakkan borom bi moo gàddu sama wërsëg. Mm-hmm. borom bi moo wax ne moo gàddu sama wërsëg. du président Macky du état du leneen. dëgg la jii ñee ngi joxe information ne affaire bi dugg na biir assemblée. ñooñu ñan ñoo leen ëpp sécurité. Ah <laughs> seen oto bopp la ñu yor buxante wuñu ci taxi clando. wu ñu ci njaga njaay buxante wuñu oto lañ leen jox jox leen carburant. sunu boroom dugal na jàngoro ji ci biir hémicycle boobule. Hmm, hmm, hmm. donc kon lan mooy sunu rôle mooy kenn ku ci nekk nga waa nga protéger sa bopp. man damay protéger sama bopp mooy sama masque sama gel distanciation man la aatum naa naa ko def. léegi nag parce que bu bu loolu moom lu ñëpp xam la alaaji lu ñëpp xam la. Ah, fàttali ko nit ñi ci marché yi ci jàkka yi. Hmm. ñun de depuis que ñu waxee ni affaire baa ngi dellu si. Hmm. ci jàkk yi ñuy jullee amul bis bu ñuy julli te duñu ko fàttali nit ñi. Ah, am na solo de. amul bis bu ñuy julli te duñu ko fàttali nit ñi sëñ bi. Hmm. masque yi sëñ bi gel yi. parce que ngeer a ngi ngeer a ngi ba moom sëñ Babacar Si daan wax naan nit ñi dañ leen fàttali rek hmm. ne leen lii mooy ngeer lii mooy ngeer lii mooy ngeer hmm. bul ne ñoo ko tey déedéet del fàttali rek comme li ngay def noonu yàlla na la ci yàlla jàppale hmm. li ma doon bëgg li ma doon bëgg a terminer alaaji mooy euh, bu ñu bu ñu xool xaalis bi balaa nga daan naam nefa boo amee wér boo amee xaalis te amoo wér amul benn njëriñ ñaata nit ñoo nekk ci hôpitaux yi seen compte yi fees dell ak xaalis te mun ñu ko jariñoo dëgg la nañu xënte woo wér gi. maintenant nag loolu lépp xam nga même mbëkk meeg barsaax yi toujours dañ ne euh, société bi fu nu yóbbu xaalis moo kawee kawe ñàkk doylu gi loolu ku ne am nga ci wàll de parce que même léeg nga gis <laughs> ñoo xamante ni ñooy encouragé wan nit ñi ne ñi am ak ñi amul du benn ak yooyu mais bu fekkee li ñuy wax gëm nañ ko yemale gi ñuy wootee gëm nañ ko. te ñi ci mhm. war a jiitu jiitu ci kilifa goo mën a doon ak foo mën a féete culture économie religieux politique. parce mhm. que aussi nit ñi boo di jàngal da ngay jiitu ca njàngale ma. loolu loolu rek mooy wax bi gis nga nit ñi. <laughs> mag ñi bu njëkkoon alaaji xam nga nu ñu defoon xaalis. Hmm. dañ ko defoon mu nekk outil de travail. Hmm. outil de travail. Hmm. maanaam mi ngi mel ne kees à outil bi mécanicien bi am wala bi menuisier bi am wala bi keneen am. bu soxlaa marto day dugal loxoom ci kees gi rek génnee marto daaj ba pare tegaat doonaat ka mu doonoon. xaalis bi tamit nit ñi dañ ko doon teg foofu rek bu ñu bañee faj soxla. génnee faj ko soxla ñëwaat toogaat. bi ñu jëlee xaalis nag def ko mu nekk suñu yàlla ju gën a mag suñu yàlla yi. Hmm. ca lu ñu am problème ba hmm. boo ko amul mu jaral la def lu ñaaw wax lu ñaaw. Hmm. ñàkk teggin rey sa bopp pour am ko. mais li gën a li ñu mag ñi daan gën a yittewoo mooy naka la ñuy am cohésion sociale. loolu lañu daan gën a yittewoo cohésion sociale ñu ko am te dégloonte wuñu. dégloonte wuñu ma déglu El Hadj Assane lan lay wax. te duma ko jugé tant que gisaguma lu lu lu wér. tey teggin teggin yooyu yooyu moo moo moo moo ñu manqué. tey mandu mandu xam nga ni dañu taxaw ñu nekk euh, wax wax lu wérul moo hmm. gën a bon ci bàkkaar mais ba pare mu mu doon fi nag euh, lu xew. loolu alaaji xam nga xam nga lan lañ nan lañ ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. dafa wax ni nit ki bu waxee benn baat bu dul dëgg. Hmm. suñu borom day jël lool maanaam lor yooyu di salit yooyu di génn. Mm. mooy continuer ba ci suñu boroom daanu ci suñu kanamu borom di pët pëti comme mm. ganaar gu ñu rendi sa seddagul. suñu borom xam ko mm. daan ne lii lan la. malaaka yi informé ko ne ko diw moo wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg moo ñëw présenté wu ci sa kanam. suñu borom ne bind leen sama jaam boobu bind leen ko ci ñi wa ñu dul wax dëgg. ngay dox fii ci àdduna nag ñëpp di la gis. ngay jaagar jaagari ne yow ca yàlla tekki woo fa benn benn solo. yaa ngi ci bon ba. donc loolu mooy musiba mi alaaji. <laughs> yàlla na yàlla musal moo tax góorgóorlu ci yar yi jërëjëf jërëjëf. góorgóorlu ci mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ku ci nekk di takk sa masque. na ko fàttali sax ko jërëjëf dama ko fàtte woon de. vraiment vraiment waaw ko fàttali sëñ bi du jël sa masque. jërëjëf dama loolu mooy teggin nit dina la wax léeg sax loo xam nga nga ni ko jërëjëf fekk xamoon ko sax. xamoon gënoo ma koo xam wala gii naa ko <laughs> wax day. loolu daal alaaji nañ ci gën a bàyyi xel. su ko defee nag imaam yi tamit li imaam Omar Diène wax sànq. Mm-hmm. mooy ñaan baax na. Mm-hmm. ñaan baax na. Mm-hmm. wante ñu ñu ñu boole ko ci sunu xutba yi. xutba ajjuma yi comme ajjuma yi di ñëw même bu fekkee nekkul sa sujet. mais nga dugalaale ko ci biir fàttali nit ñi ne leen jàngoro jàngi fi nañu moytonte nañu sàmmante. waaw loolu daal ñu fàttali ko. maa ngi koy ñaan de façon systématique way waaw beneen sujet sax mënu fi am ndax même assemblée dégg nga ba fi xewee ñu ngi commencé soppar ñi ak naan arrêté dinañ nangam ak dinañ def lii. donc ku ne xam nga ni beneen sujet mënu fee am lu may bi fi banit ñi ba noppi soog a wax leneen. <laughs> olof nee na lu ay di njàmbat. jërëjëf Thiam. lu ay di njàmbat. maa la ko wax. El Hadj yàlla yàlla fay la yiw. naka noonu Imam Oumar Diène ak ñëpp ñu àndoon ak ñun ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop naka noonu réalisation Barthélémy Ngom Yacine Pouy service digital 10 ngeen ànd ak rédaction bu RFM Adja Awa mbay du ñàkk notamment euh, Thiam mi ñoom dafa daal di am tey ji ngant du Mouhamed Ndiaye ci kanam tuuti émission xalaas Ndoye Bane ak euh, Abba euh, ñu ngi leen di ñaan